waaw naka mu. waaye kontaan naa leen waaye naa de. waaye rax na de bi nga léegi ba tey yaa ngi doog a ku la jommal ah mais ah, <laughs> mbaa yaa ngi <laughs> Habib Kassé. Habib Kassé ah. oh ndeysaan ndeysaan ak Bijou. aywa ndeysaan. ndeysaan. Eh, affaire rax na de. Ah, affaire rax na de. jaayam a mais affaire mais Wally affaire rax na de waaw bilaay a mais ah, naa mais grand na mais bay waxuma loolu way yow loolu maa jàmm way li li Wally wax loo gisee non affaire bi wax na dëgg tamit ah. dañu ko si remercier quoi parce que def na lu rafet ah. ndax ñun ñëpp ñu ko doon ne gars yi ne tiktok bi nee na yaa leen dàq way. maa ngi gis maa ngi gis tiktok bi nee na yaa leen dàq way. samp na nee na yaa leen gën nduruwaale. Ah, wax de. tiktok bi loolu laa gis léegi ñu wax ko. sant yàlla rek ah. ah. Eh, mais kee nee na ah. Euh, damay jox gars yi rendez-vous. le 27 incha allah biir camp bari mhm. dama bëgg na ñëpp teew. Mhm. ñu ambiance ñu gis Wally 2 ak beneen facette bu bees tax. Mhm. le 22. ñoo ngi Saint-Louis biir Taf Taf. gars yi ñëw leen. sita bi seen doom di ko foore bége waaw doon mhm. kontaan naa mbay gisee li Wally wax waaw mais mais loolu contentement la ndax tey tey mu ñëw ba gis Wally Day ni mu ci àdduna ah mu def ci vidéo wax ak ñun kon loolu ñu ñi di ka roy ak di ko bége mhm. day nekk loo xamante ni fii attel la si ñun waaw ndax ñun moom la dañ bëgg mhm. ah te di ko wax nag euh, mu gëstu li nga xamante ni mooy waa liggéey hmm. mu jàppale leen hmm. surtout soxna ay dara hmm. waaw ndax moom mi ngi jàppale gars yi na gëstu waa liggéey ndax gars yi bëgg nañ liggéey li ñu leen rek mu daal su ma sañoon daal mu jàppale ñu bu baax a baax bu baax ñu xel. kontaan naa. waaw loo gisee li waay wax. waaw mais franchement kontaan nañ trop kontaan nañ trop. merci beaucoup ci ci initiative bi ngeen def kontaan nañ trop si xalaat bi. franchement parler amuñu seen fay. Uh-huh. di di di di di leen ñaanal jàmm. yow yaay waali kan. maay waali de Mbour. waaw da di ñaan jàmm ci yéen di leen ñaanal ah lii nii ngeen def nii franchement rafet na trop di sàkku ñaan tamit di ko ñaan mariage yi message bi message bi ñu gëstu waali day dimbali leen parce que bëgg ko moo tax ñu jaral ñu jóge dëkk dëkk di déplacé wu di dañ dañ ñu mais nañu taxaw jàppale ñu te yàlla tax mais franchement kontaan nañ ci yéen trop Youssou Ndoye kontaan nañ ci moom trop franchement lii moom ala doome na yow sànq yaa doon toog ci plateau bi lu tax nga koy siis. Euh, non moom mu gën naa nduruwaale rek moo tax nga koy siis. mag mag gën a nduruwaale a ko doon wax sànq. waaw dama ko xamal ne ko man borom kër gi nu mu ko woowee du noonu mais teg naa ko sax si instant yii nu mu ko woowee gis ngeen nu mu ko woowee baax na. teg nga ko si teg naa ko sax lu laa bëggoon. mën na waay dem Mbacke maa ngi joxaat dégg nga affaire tabaski ba mu yëngal Mbacke incha allah. ah eh, li la Waly wax noo noo si noo gisee. Waly sama njiit la moom. kay kay kay Waly kay kay. xarit sama xarit ma gis xam nga moom macha allah boo gisee gis Waly comme moom mais man moom comme loolu ma ko sulu doon jàppante gis naa ko léegi si TikTok bi yéen ñaar da doon jàppante ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw li ngeen doon si TikTok si kii bi ay la doon wax mais Waly li mu wax loo ko gisee nee na yaa yaa bi waaw loolu la yàlla def la wax waaw léegi. kontaan nañ kontaan nañ ci mariage moom géej la. am na nu mu doon mel bu doon karen la. Mhm. daw nañ génn bu yàgg. Mhm. mais ni mu waxee rek. Mhm. ku ko gis xam ne nit dëgg la. te ki ngay roy jar na ko waaw. joxale te joxanteel loon loxo. non man moom on est ensemble wala ah. géej la ñun ñëpp a far ñun ñëpp bokk na ñoo bokk rek mën nga fa jeex na ah. ah. mbay waaw benn la waaw maa ngi jóge ba Diourbel ñun ñëpp benn lañ quoi ni ñu liggéey rek nekk ci affaire yi waaw ku ci nekk xam nga bañ a xeeb sa morom bañ a xeeb li nga nekk dara xëyul sotti waaw petit à petit l'oiseau fait son nid mm-hmm. waaw ndax tëb tëb dawal oto mm-hmm. xam nga mbay mm-hmm. mais bi si ngoone nee dañu doon dala doon dala doon kii quoi wàññi xam nga ah. Bintu Ngoné moom noonu la mel day neexal. xaaral xaaral dem. soo gis def waaw. waaw kaanu bu mag a mag ñu ngi ñu xeeree nii. waaw moom bëgg ngeen bàyyi xel faramaare bi bëgg waale ba mu jeex tàkk. Mhm. waaw soo gisee mhm. may sa biir may sa biir maa. ah mu gëstu waaye doy. taal taal farak bi. waaw Ousmane sa waay jàmbaar la ndaanaan la. Mhm. ñun sëguñu muy def parce que mu ngi bëgg a xool Sénégalais amul sa fay. nee bis nee na da nga see da yooyu nag jeex na fi mu toll nii liggéey moo des. Ah. waaw maar wax na ko fi mu toll. day liggéey ah, ah. liggéey moo des. parce que way na way na son way mooy yoonu ndaw. yoonu ndaw mu ngi liggéey de day laaxatu de. Ha <laughs> Ooh.